di sant yàlla bu baax di nuyu Sénégal gi yëpp di julli si yonent di nuyu Sénégal gi yëpp di ñaan ngi fi jàmm yàgg di ñaanee kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp yàlla may lañ yàgg fi te wér. waaw ñu gis ne ma jël nga ko si kaw Bombardier. mu defoon deux victoires si kaw Modou Balla ne day def troisième bi troisième bi nga xañ ko ko. ñu gis ne tamit da ngay mbër boo xam ne boo xoolee képp ku fi am yenn série yooyu def rek bu ñëwee ba si yow. day am ay jafe-jafe lu lu lu noo noo loolu. mbir yàlla suñu borom la rek xam nga di am bu rëy ci banlieue bi yëpp yëpp ah ñu ma jàppalee ci combat bi ak Sénégal gi yëpp rawatina waa Pikine nga xam ne fa laa juddoo yaroo fa waa Mbaaw Malika xam nga ak euh, waa Yëmbal Buun ak euh, vraiment waa nu ko waxee sax. waaw banlieue bi yëpp daal Caaroy Azur xam nga ak jàmm Diamaguène surtout Diamaguène xam nga Sicap Mbao yëpp daal ku lim da ngay juum seize communes yëpp daal gis naa ni jàppee ci combat bi ak Sénégal gi yëpp nag vraiment fépp Sénégal ñëpp ma na ci combat bi ñëpp ma ko yéene woon. sa xale yi ñëw si yow bëgg la ñett ne y' a jamais 203 nga ne ko loolu tey dina doon exception bi lu waral loolu. waaw mooy kon ma rek xam nga Pikine moom mooy lu ma expliqué. dugg boo duggee Pikine moom dama lay xaar ci biti rek dugg bi dina yomb mais génn bi mooy jafe xam nga dugg Pikine de mu nga fa daan ay mbër mais génn bi dina jafe trop parce que maa ngi toog di boo duggee moom boo ñëwaatee di nga départ dugg ci biir rek fay des waaw xam nga loolu nag wax ba kaañoo rek tooñ na quoi mais maa ngi nuyu mbër yëpp xam nga ku ci nekk turam ak santam tam aussi xam ne lamb bi ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk bay ndam li génnu Sénégal xam nga a yaay <laughs> waaye sax te nga a def ay ron. ku génn waaw kër moom mu ngi waaw te laaj ñu fa ah, moom lay laaj moom moo mën na yomb mais génn bi dina jafe trop. foo teg loolu. waaw fu mu ko teg mooy. buntu Pikine di leen xaar. waaw <laughs> ah, yow sama gan di kay. waaw mais ma keroog doon na gis juru làmb ji nga ànd ak détermination bu doy waar même sa staff ñoom lañ ak ñëpp koo ci wax mu ne dañuy daan mais fan ngeen ko tegoon. waaw mais xam nga gëm-gëm rek ak entraînement ak ñaan kilifa yi xam nga suñuy waajur ñaanal ñu rek. dégg naa sëriñ moo leen ko garanti. Hmm, non. Ah, man duma ko wax. loolu loolu mbër moom ah ngembal yaaw jaal dem jox ko Bomba Dieng ndax dina ko daan waaw mi noonu. kon tey lan nga yëg bi nga xamante ni. ñaan yëpp a daje rek waaw. mais fi mu ne nii yow sa objectif yëpp roi des arènes la woon. nga di ko doxee di ko waxee tey jël nga roi des arènes bi mais tey ëmma lan lan lan mooy taxawaay ëmma à part roi de arènes bi. waaw kon ne sumay entraînement rek ba pare roi bi ma bokk ak sumay rakk ko ci mel ni Boy Niang Ama Baldé Tyson numéro 2 Sokku Jatli Mam Balla mbër yëpp daal ñu bokk rek ufandoo ko liggéey te xam tamit aussi ñëpp ko bokk. ne dégg nga Tyson da ne woon dégg ko. waaw loolu moom côté bu du bëgguma ñu sori ci quoi. déggante xam dégg nga ko no déggante ñu mais ça va nice. waaw ah, dégganteegul jàmm quoi voilà. mais dañoo gis bii paa nga rax sa bi ngay bàkku nga rax ci benn bàkku boo xamante ni Fass lan ko xamee woon da ngay dëggal sa diggante ba Bordeaux wala lan. non Gris suma waay la suma doomu ndey la maa ngi koy nuyu bu baax xam nga sama gars yi copain maa la nuyu. courant mi ngi xam nga waaw courant. <laughs> courant yaa ngi tane ah. <laughs> <laughs> xam nga ne. bàkk boobu suma entraîneur da ko dam bàkk ñu koy wax bill léegi ndeysaan saa ñu nekkee saal su musaa bëgg ma may ko jox ko wecceeti wala yi dee xaalis xam nga man bàkk ma neexoon ci moom quoi xam nga dama koy tëggal xam mu koy bàkku yàlla def nag mu gaañu xam nga léegi nag kon dèjà ñun dañ daa bu ñu Moussa bëree ba pare contact maamu dañuy tax sëriñ di koy bàkkandoo xam nga sama combat beeg Balla Gaye bi ma bàkk ba pare suma rakk bi xaadim na géew na ko tëgg man surprise da ñëwee ci man. waaw géew na bu mu ko tëggee na sama xel dem ci biir quoi xam nga ma xam ne combat boobu combat am la woon quoi ma bàkk ko te Gris Bordeaux da bàkk te ku ne xam ne bàkk boobu moom xam nga. ñu daan mhm. nga nekk roi des arènes. mais ñu gis ne am na combat boo xam ne ñaari mbër yëpp muy Modou loo Balla Gaye nee nañ ku si daan yow la bëgg bëreel te ak lu làmb yëpp nee nañ loolu mooy logique làmb yow loo si wax. waaw yàlla baax na mais bu nekkul ñooñu sax man ku ma làmb boole rek damay bëri moom mais kon nañu ne ci contrat nañ leen ñu bëri rek ak xel mu daal ak bu neex la nag waaw vraiment combat bu neex la ma leen di ñaan ñoom ñaar ñëpp ñu am jàmm bëri ko si jàmm mu am na ku daanu quoi mu bañ a nekk ay match nii match nii match nii nag kenn daan kenn daan daanu ah. loo bëgg a wax foofu. Ah. loo bëgg li mu bëgg wax rek mooy combat bi yegg ci jàmm mu neex. parce que bu mag bu ñuy séntu bu toll noonu il faut kenn daan kenn daanu quoi mu maanaam amateurs yi kontaan supporters yëpp kontaan lamb gagné quoi parce que ku ci daan tam ndam lu génnoo Sénégal. waaw tax li Modou Lo di machine yi moo tax ngay sànniwaat xeer. Modou Lo machine yi dafa bëri daan ma man daanu ma waaw daan na ma. ak Giri ak euh, Lac de Guiers. waaw noonu xam nga laa ci ëpp combat yi toll mel noonu tam mu ñëw mu nekk machine yi quoi te loolu day tax xam nga amateurs yi nit ñi di ci wax quoi. ñu ngi ciy ñaan rek quoi combat bi ñum ñaar ñëpp ñu si jàmm ku yàlla dogal mu daan mu daan mais xam nga boo déggee ma waxee noonu mooy mu nekk ko combat xam ne amateurs yi Sénégal ñëppay kontaan ko waaw mais nekkul question dama leen di wax pour sànni leen xeer wala dara parce man xam nga bëri naag Modou Lo mu daan ma bëri naag Balla daan ko Balla Gaye daan na Modou Lo du dëgg Bombardier moo leen daan ñoom ñaar ñoom daan naa ko waaw loolu la. dama ko Casamance. Casamance xam nga foo ma dem fa. parce que sama yaay moom foo ma seet sumay sumay nijaay. Alioune Mbaye waaw mm-hmm. dalaa Pikine maa moom Pikine la mooy Pikine faa ñu Pikine jërëjëf Eumeu ñu ngi lay jàmbaay ñu leen nuyu